réew mi 24 TV. xooloon it lu mat ñaari waxtu yu teg avocat général bi jël parole daan ne ñetti argument yi état senegal andi mook agence judiciaire de l' état teguwul ci dëgg loolu la wax ci biir salle bi ñëpp di ko dégg moom le procureur général. nee na ñetti argument yu nu avancé ba tax Ousmane Sonko mënut a dugaat ci liste yi jaay doole Ousmane Sonko nee na ñett mi ngi demandé tribunal bi. cour cour cour suprême mu rejeté ko parce ci ay caaxaan la lalu laluwul ci droit laluwul ci dëgg loolu la avocat général bi décidé maintenant nag président tribunal bi comme ni ma ko waxee dem ten tuit di Abdou Diouf bëggee Abdoulaye dootul mës a doon candidat ci Sénégal ci cour sûreté de l'État nga xam ne moom waaj du Ali Siré Ba moom moo taxaw ni ab Abdoulaye ko teree teex mun ba mu jël responsabilité am woon président Macky Sall ne réew mi moomu ko. loolu la nga war fee kenn te ëllëg ko.